jërëjëf Serigne Cheikh Baaralaat Serigne Cheikh fédération Daayira ma soxna Maam Marème ak soxna Binta Ba ñoom ñëpp ñëw na ànd ak fédération Daayira Xasaaje nekk Kemer yëpp waaye fédération Daayira Maam Jaara ñoo yónnee cant Serigne Bassirou Khadim Awa Ba ni koo xamul noo koy def ku ne nam la defa tax ndax moom mooy seen point d'honneur ci turu soxna Maam Marème ak soxna Binta Ba ñu ngi sant Serigne Bassirou Khadim Awa Ba. Ah. Serigne bi nee mi ngi sant baax Serigne Uweysu Mbàkke mu Serigne Moustapha Mbacke moom seex Cheikh Massamba ak sëñ Modou Mamoun mbake moom Cheikh Moustapha moom ma Massamba ak jigéenu boppam bii di soxna Assou Gawane Mbacke moom sëñ Moustapha moom seex ma Serigne Cheikh ñu ne nga jëli sëñ Moustapha Abdoul Akram Serigne Bass nag. Serigne Modou Mamoun Serigne baa ngi sant bu baax Serigne mbay Sarr Sénégal Tour sunu baay Serigne Mbaye Sarr. Sénégal Tour Serigne Bassirou nee na moo ngi lay sant waaye moo ngi lay gërëm nee na moo ngi santaat bu baax Cheikh Abdoul Khafour ak soxna su baax ji soxna maam Fati Khafour ak ki nga xam ne mooy Serigne Mourtala moom Cheikh Abdoul Fatah mu Serigne Fallilou mi nga xam ne moo yor social Touba ca kanam ñoo koy sant waaye ñoo ngi koy gërëm sëñ Modou Mamoun. waaw Seydou de sëñ Bass léegi damaa toog fii jooy ñii mu dajale. dara jëy sëñ Touba doo leen gis ci lu dul bis bi ñett ñi gën a transparent ci Sénégal baasam bii nga leen di fekk Ablaye Dia Sénico léppam silence la gis ko ci baas wala dajak moom ci mbedd doo ko gis Moustapha Ndiaye noonu Racine si noonu loolu nag sa jikkoo tax ndax ñii Mbàkke amuñu jot kenn du leen gis ci baas dañuy yónnee jëf seen jëf boole koog silence Ablaye Dia lu mu may boo ko waxee beneen yoon yow dootoo encaissé kon moom bu toogee ci baas grâce à sëñ bas ak sa jikko kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay. sëñ Mamoun li nga wax léegi ñu ngi ñaan na ñëpp toog genn kàddoo ci des sëñ Bass nee na mi ngi jéggulu jotaay bi kilifa yi am na ñoo xam ne 9h lañ fi ñëw ba léegi nee na sëñ Moussa la Karam képp mooy jël kàddu ñu ñaan jotaay bi jeex sëñ Moussa Ba nag kaddoom mooy kàddu kaddu Cheikh Mamadou Mountakha kaddoom mooy kàddu mbooleem ku bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ndax sëriñ Koso daf ni ko. sëñ Muntaxa ba ngay ànd ak moom du tey la nga seq ak moom du tey sëñ Bas dafa am ku la cant cant gu rëy sëñ Bas dafa am ñu nu yóbbante ci yow ki ko yóbbante mooy mu sawaa Ndiaye ak Ablaye jaa dañoo wax ne ñu ngi seereel àddina sépp ni yow yaay seen sëriñ yaay seen xarit yaay seen wëllëre yaay seen lépp nee na yaw mu Moustapha nag dafa wax ni sëriñ Bas day sëriñ bu neex a àndal. ndax sëriñ boo xam ni dalay bàyyee li nga yor di bokk ak li mu yor mooy yow nee na na ñëpp seere ni yow àndoog ñoom waxtu wu nekk ngay leen di laaj addiya wala ngay bëgg lenn loo xam day jóge ci ñoom lu leen di yokk rek ngay def lii nag day message boo xam ni Moussa dafa insister ak Abdoulaye ni nañ la ko wax ba àddina sépp dégg ko ku gis ni nga leen def xam ni yaa ko yaa ko doxee ñu doxee noonu Serigne Cheikh Touré bu Thiès xalifa sëñ Saliou Touré ñëpp bëgg nañ ci yow. nee àddina sépp bëgg nañ ci yow. sa dikk gi sa dikk gii. rëy na ci njabootuk Serigne Touba gépp. na ci njabootuk Serigne Touba gépp. wane na ni. wane yow sa baay. yow sa mooy sa Serigne. mooy sa mooy sa yaakaar. mooy sa yaakaar. mooy sa wasila. mooy sa wasila. Serigne Saliou ci góor yàlla yi la ci góor yàlla yi la bokkoon. moo tax gannaawam. moo tax gannaawam. nii rek la mën mel. kon sëñ Cheikh jërëjëf kon sëñ Cheikh jërëjëf. loo nekk loo nekk. ña nga ca ña nga ca. loo jàpp loo jàpp. jàpp nañ ko jàpp nañ ko. loo téye loo téye téye nañ ko. li la sëñ Mountakha wax barki. li la sëñ Mountakha wax barki démb Touba. dal na xelu murid yëpp dal na xelu murid yëpp. jërëjëf Touré jërëjëf Touré Seydou. maa ngi lay sant di sant waat Seydou nga jàllale ñu andi sëñ Moussa Karam. jërëjëf Cheikh délégation AIS. mooy Serigne maam Cheikh Mbacke di rakku Serigne Bassirou Mbacke Xaadim Ba ki ko jiite mooy Serigne Bassirou Cissé jaamal jërëjëf ak ki nga xam ne mooy oustaz Aliou Sànqe ñooy délégation Serigne Mame Cheikh Mbacke AIS. sëñ Modou Kara Mbacke. nee na Cheikh Modou Kara Mbacke noo rey ni général Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. nee na moom la bëggoon a mujjee. ndax li tax. ndax lu tax. lu ma nekk. nee na Cheikh Modou Kara mu nekk. lu ma nekk. nee na lu mu nekk. mu nekk ca la fi yebal jëwrin mu niiru. nee na démb mu niiru. indi ay teraanga mu indi ay yebal njabootam yebal njabootam taalibeem yi taalibeem diiwaan bi diiwaan bi shirkil jawaari fi axbaari saraari fi axbaari saraari ñëpp nga ne toog nee na taalibe yëpp ñëw nañu teew nañu ana général Ahmadou Kara Mbacké noo rey nii nee na Serigne Modou Kara moo ngi lay sant moo ngi lay gërëm moo ngi lay ñaanal yàlla yàlla la yàlla jàppale yow Cheikh Modou Kara Mbacké nit ku baax nga di sant waa Guy sant bu baax waa Guy Mbind. Serigne Sidi Abdou Aziz. Serigne moom Cheikh Abdoul Aziz. Serigne Cheikh Bara Karim. Serigne Cheikh Baara Lahat. Cheikh Baara Lahat. Serigne Abdou Lahat. Cheikh Abdou Lahat Abdoul Aziz. Serigne Bassirou Ahmed. Serigne Bassirou Ahmed. Serigne Alhaji Mbacke Ahmed. Serigne Alhaji Mbacke Ahmed. waa kër eh, Serigne Cheikhouna Abo. Serigne Cheikhouna Abo. Serigne Khadim Louga. Serigne Khadim Louga. Serigne Mame Baara sunu doom. Serigne Mame Baara sunu doom. Serigne Djili Amar Fall. Serigne Djili Amar Fall. ak ak Serigne lu ma nekk. nee na lu mu nekk. njaboot Sëñ Baara gépp ñoo ànd ak moom. moo ngi leen di sant di leen gërëm. di sant bu baax Serigne Ahmadou sëñ Moustapha. mu sëriñ Moustapha mu sëriñ Modou Boussa Dieng. mu sëriñ Modou Boussa Dieng moom sëriñ Fallou. ci taxawaayam ci taxawaayam. lu ñu nekk lu ñu nekk. mu nekk mu nekk ca. moog sëñ Ismaïla Mbacké mu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma. ana sëñ Moustapha la kanam jàmbaari lislaam ji. jàmbaari sëriñ Afiya ki nga xam ne day kenn ci kër sëriñ Afiya kii taxaw sëriñ Afiya kii taxaw njaboot sëñ Afia ki bëgg njaboot sëñ Afia ki jàppale njaboot sëñ Afia ki taxaw njaboot sëñ Afia kooku mooy kan jàmbaar Cheikhul Khadim Serigne Moustapha Lakaram moom personnalité bu rëy bi. dafa am ay oustaz yu fi neew ñu teew tuuti muy oustaz Pape Anne ak oustaz Modou Fall sekk Seck alquran ñu ngi leen di dalal te di leen sant bu baax ci teewaay bi boobaak léegi yéen a ngi wax ci bis bi léegi Serigne Koso la ñuy jëli. waa kër Serigne Modou Kara Mbacké noo rëy ni généralu Khadim Rasoul borom alxadimiya jàmbaar jàngoog jërëjëf waaw leen góor soxna soxna Yacine jërëjëf Doucouré Serigne Bass bi nga ko teraanga ji da nga ne bu ko kenn wax te ay teraanga nag dee su ko nëbb jërëjëf yow Cheikh na Cheikh Saad Bel si waatoon doo changé teguin yoonu yoonu l'islam bépp ngay jëf sa teraanga waaye yow alali Cheikh na Cheikh Saad bu nga yàlla yàlla guddal sa fan. jërëjëf Serigne Moustapha Lakram mooy wax dañuy jëli Serigne Koso mu Serigne Mountakha waaye jëf ju rëy ji ki ko jëf tani duma wax bu ma kenn tudd jëfal ko maamam Serigne Bara rendi di 16 def baas bu toll nii ta laajoon ndimbal jëf ci liñ ci def ca laajoon ndimbal Serigne Manda Gàkku werekaanu Serigne Bassirou Bara di gaynde seriñ Serigne Bara damaa bëgg nga jiin Serigne Bassirou Serigne Xaadim Awa Ba di gaynde seriñ Serigne Bara ba saal bépp yëngu Serigne Manda bàkkal jàmbaari Serigne Bara ji. yaa rabbana inal wara baral Mamadou Lamine Mamadou Lamine baara baara ku way am ndam baar baaray Mamadou Lamine Mamadou Lamine am ndam bari saxa wax leen baaray Mamadou Lamine Mamadou Lamine baara Lamin Mbakke jara way baari Lamin oo baaray Moodu Lamin Ahmadu Lamin baari yow yaa di gayndeeg baara baari Lamin oo baaray Moodu Lamin baara baari na ñëpp jóg taxaw ca kaw màgg baara na ñëpp jóg taxaw ca kaw màgg baara jóg leen Aminata Lo koo ci gis muy Bamba baay sa jóg leen màggal Sëriñ Baara na ñëpp jóg taxaw màggal Sëriñ Baara jóg leen ñu màggal Sëriñ Baara waaw kay baay sa wax leen Mustafa Aminata Lo Baara Baara Aminata Lo koo ci gis muy Bamba na talo ko ci gis muy Bamba baari bilaay Mustafa amina talo baara amina talo ko ci gis muy Bamba baari murito maamam abadan baar bilaay baara aminatalo Mustafa aminatalo yow de ko ci gis Bamba baar waaw baara aminatalo Mustafa e ko ci gis muy Bamba baar bilaay baara Mustafa aminatalo yow ci gis muy Bamba yaa kennal sama baara aminatalo Mustafa Aminata Lo yow ko ci gis muy Bamba baay saxa murito baaray Modou Lamine Ahmadou Lamine baara Cheikh Modou baara jaraway baay saxa murito baaray Modou Lamine Ahmadou Lamine baara Modou Lamine Mbacké jaraway baay saxa la ilaha illallah cay Serigne Bara waxoon naa leen ko de sëñ Bas am nga waaye sëñ Bac tey amati nga waaye sëñ Bas gaynde baara amati nga ndam gaynde baara amati nga ndam cey baara nee waa kër sëñ Cheikh Coro ak waa kër sëñ Balla Coro. ak waa kër sëñ Balla Coro. mention spéciale. mention spéciale. jigéen ñaa ngi ne. jigéen ñaa ngi ne. jóge Saint-Louis. jóge Saint-Louis. Touba. Touba. Mbar. Mbar. fu ne ci senegal fu ne ci Sénégal. ñëw ñëw bokk ak ñëw bis bi. boole ko indi seen i. boole ko indi seen i teraanga. sëñ Moulay. xalifa mi xalifa sëñ Balla Coro. sant nañ ko sant nañ ko. gërëm nañ ko. sëñ Xaadim. mi xalifa sëñ Cheikh Coro. sant nañ ko gërëm nañ ko. sant sëñ Gaawaan Mbàkke sëriñ Mous ak ak sëriñ Moustapha ak sëriñ Moustapha ak sëriñ Jiili ak sëriñ Jiili sunu doom sunu doom ñoo ngi jox kàddu gi sëriñ Modou Baar Abdou Khadim sëriñ Modou Baar Abdou moom sunu mag la moom sunu mag la sunu xarit sunu xarita sunu wëllëre nit ku baax léegi ñoo ngi jox kàddu gi sëriñ Moustapha Lakaram bu ñu paree ñu ñaan yeewi ko sëñ Modou Mamoun ñëwal tiyel sëñ bi ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international